ngeen jot suñu vidéo nag foo donc vraiment on est très content de recevoir ici chez nous maintenant je pense qu'on a eu à. échanger en privé et on peut partir sur de nouvelles bases et on vous rassurer que ici notre credo c'est l'impartialité c'est le professionnalisme. Et tous les journalistes qui sont dans ce groupe sont quand même des, des, des gens très responsables, qui sont très professionnels. Donc on, on vous remercie pour ce, ce déplacement. merci. ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax que ni kontaan nañu trop si présence su président Ousmane Sonko bu Pastef ak délégation bi yëpp tey jii Birane Ndour qui est le directeur général bi Alaaji Assane Gueye nekk directeur rajo bi. Souleymane Niang directeur de l'information Kao de Mine directeur de IGF di wax que ni ñu ngi kontaan bi ko recevoir fii si suñu kër euh, parce que bi fi xew yéen ñëpp yéen a ko gisandoo ci biir événement yi fi amoon groupe bi quand jot na ci euh, ay ay ay euh, si biir lu metti attaqué rajo bi attaqué télé bi vraiment mu nekk loo xam ne ñëpp dañ ko ñaawlu di wax que ni groupe Futur Média mooy groupe bi nga xam ne moom moo jiitu ci wàllum média fii ci Sénégal donc bépp sénégalais buy dund fii ak feneen war nga mën a am accès ci groupe bi ñu waxtaan waxtaan bu xóot ci bureau yi loo xam ne peut-être duñ ko mën a génne si biti vraiment ñu expliquer te ku nekk comprendre te morom je pense que à partir de maintenant am na mbir yu bëri yoo xam ne peut-être nit ñi nañ ko seen xel dinañ ko teggi di ko rassurer que ni fii këram la c'est pas la première fois mu ñëw fii man recevoir naa ko fii avant donc vraiment suñu bunt yi ubbeeku na pour bépp acteur politique boo xam ne mi ngi Sénégal fii ñëpp ñoo ko bokk donc ki nga xam ne moom moo ko fondé defu ko pour boppam daf ko def pour Sénégal télé bi ñun moomuñu ko Sénégalais yi ñu ko moom donc ñu koy rassuré di vraiment kontaan ci déplacement bi je pense que par rapport ak li ñu fi tënk wax ko vraiment nit yu bëri dinañ gis que ni euh, en réalité képp ku fi def lu baax rek pour Sénégal nga ko defal loolu moo am solo donc ñu koy gërëm di ko sant di gërëm ñu mu àndal yàlla jàmm yàgg Sénégal parce que tey jii nii lépp lu munti xew rek ñun ñëpp Sénégal moo ñu war a yitteel Sénégal moo ñu war a yitteel duñu ay politiciens mais Sénégal moo ñu war a yitteel donc képp ku nga xam ne da am mbébét pour yore réew mi il faut quand même nga ubbi sa bunt pour média yëpp ñëpp mën a wax ak yow te loolu rek moo am solo donc ñu lay gërëm président di la sant di gërëm ñi nga àndal ñëpp yàlla na jàmm yàgg Merci. dugal nga jël fii ak moom du nga fay balaa ngaa jóge fii ama bale Alaaji Malick une seconde bu photo nee la madame ça

Gracias.

ak ci baax. Thank you.